Euh, mbokk asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu nu ngi leen di ziar euh, di leen masawu ci li dal suñu kaw àdduna bi yépp waaw euh, yëg-yëg bi mooy dafa am lu nu ñàkk koo xam ni monument la am lu nu ñàkk koo xam ni booy xool ñi gën a comprendre àddina ci Sénégal. danga ciy boole Sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñu ñàkk koo xam ni ndamu umma islamique bi la mais ndamu kër Cheikh Seydil Hadji Malick la dimension spirituelle bu Cheikh Seydil Hadji Malick xam-xamam ba dama ko gëmee ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci xam-xam ba ci yitte ju kawe ga waaye tëm ci comprendre gi àddina moom Serigne Cheikh nga xam ni bëggul woon Serigne sax Serigne toog nii rek di xaar pour ñu jox ko àddiya sëriñ seex nekkoon koo xam ne dafa teel a liggéey sëriñ Cheikh nekkoon koo xam ni yàlla daf ko teel a wërsëgal daan nañu wax ni xam-xam bi sëriñ seex am ndax xam-xamam moom sëriñ Cheikh dañ ko ko sol ca la sëriñ seex daan wax ni laaj leen butigu naar ya ca Tiwaawoon ak taatu garab ya ñu ni ko ah mu ni ndax butige ji maa jeexal seen sondeel ndax daawu nelaw guddi ndax xam-xam mom Serigne Cheikh bi mu ci paré ba jang mbolé branche xam-xam mi mom Serigne Cheikh Ahmad Tidiane asial Maktoum nga xamni ni ci dimension spirituelle bi mu nekké won ci comprendre aduna gi nga xamni ni yeneen branche xam-xam mi Serigne Cheikh jang nako tay bu lay lakal tobab day melni bu koy wax arab Serigne Cheikh yalla lewur ko ay bayam bëgg ko ay rakam bëgg ko ay magam bëgg ko euh, ba nakar naqar gi nga xamni ni mipp mépp am nañu ko tey nga xamni yenn say kilifa dina dem ñu ni bibliothèque daanu na ñu ni bibliothèque ba lakk na waaye ñun tey sunu bibliothèque daanuwul sunu bibliothèque lakkul ndax wax na bàyyi fi ay cassette la nu ngi koy déglu bind na bàyyi fii muy ay xasiida lu ne taalif na ko moom si Cheikh Ahmad Tidiane Sy di xalif général de Tidiane lu ne wax na ko waaye digganteem ak Seydina Mohamed digganteem ak Cheikh na Tidiane yi Serigne Cheikh boo daan gis conférence am nit ñi day mel ni weñ du yëngu mooy ruux dafay nelaw sa ruux dafa am lu koy dundal liy dundal jëmm bokkul ak liy dundal ruux sa ruux nag boo ko dundalul ci tudd yàlla dundaloo ko ci jàmm yàlla dafay dafay gëmmu sëriñ seex lay tax ñëpp ne tekk dara du yëngu mooy dafay yeewaat ruux yi daan la wax ay di la wax xëy bu bërki démb mi ngi lay nettali daan la ba mbooleem kilifa tariixa yi fa la ñuy dajaloo di fa waxtaane nga xam ni sëriñ Cheikh dimension bi mu amoon tabaarakallahu ak façon dundin gi mu daan mujj dundam ca nga yëgee ni euh, la alxaaji Mouhamadul Mansour bàyyam ba waxoon ni alaaji Malick mooy géej gi mais ay ay dex rek ko wër هو البحر والأنهار في جنباته kon ay yàq sa zama man kaane fi jën bil baxru waaye ci dex yooyu am na ci benn dex goo xam ne làqu na ndax alaaji Malick Gaye njaboot gi waaye mooy mooy garab gi waaye njabootam yi ñooy cer yi te garab nag cer boo ca laal borom yëg ko naar bu ñuy wax Mouhamad ibnu Abdullahi al Alawi keroog bi Maodo demee dañi Maodo dem na mais bàyyi na fii Maodo لئن هلك الحاجم مجد مالك وصار دفينا إنه غير هالك غدا تاركا في المجد من كان مثله توما مات ميت تارك مثل مالك الاج مالك دمنا مي باينا في موضوع سيرين شيخ بوكون تي سيد الحاج مالك كيغا خامني كومو نيكول سا سيرين صاح ميغي سي بير خول مريد تيجان لاين خادر مبولم ام اسلام بي نيب كو serigne شيخ nekul سرين serigne شيخ cheikh mi ngi pédagogie bi ko yàlla joxoon xam-xam bi ko yàlla joxoon comprendre àddina gi ko yàlla joxoon xam doomu aadama gi ko yàlla joxoon fonk nit gi ko yàlla joxoon mais tabe gi nga xam ne yàlla joxoon na ko Serigne Cheikh Tidiane seel Al Maktoum mi nga xam ni euh, keroog ni Serigne kër si meloon ci moom waaw waaw mujj kàddam daan na wax ni Serigne Babacar Sy fi ñu ko duyelee lañu ma duyelee man Serigne Cheikh ma tey ki ko wutu di Serigne Abdoul Al Amin di xalifa bi moom euh, daan wax ni. sama sëriñ mooy sayid Cheikh Ahmad Tidiane al Mak si al de Tidiane yal na yàlla yokku leeram yàlla taas ñu ci barkeem jaal ko umma islam bi yëpp jaal ko jullit ñëpp xam ne tey réewum Sénégal. tey xol yi wiit na la alxaj mo euh, sëriñ Mansour borom daara ji waxoon alxaj Abdu keroog bi mu làqoo 14 septembre 97 daf ne ko bàyyi atarxalu an naa ndax papa da dem balu ndax dangay ngay laxas bàyyi ñu te da nga baaxoon ci ñun nekkoon di ko am ñeewante ci ñun tey jii loolu la ñuy wax sëriñ Seex ne ko si ndax da ngay dem bàyyi ñu nekkoon nga di ko am ñeewante ci ñun nekkoon nga ñu miin la ci say kaddu nekkoon nga yow sëriñ si Ahmad Tijani Sel Maktoum ñu doon jàng ci say ay kàddu ci xam-xamam bu yittew bu sell ba waaye nekkoon xakim boo xam ne ñëpp sopp nañu ko yàlla yàlla yokk leeram tey Sénégal xam nga fa yii dafa tàngoon jir waaye boo xoolee changement de climat bi mu am ci ay seconde ay waxtu niis jékki-jékki commencé sotti ndox ca nga yégee ni wëllu yu piir dem na wëllu yu piir dem na suufa nga koy jooy asamaan a nga koy jooy mbindeef yëpp nga koy jooy ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla taas ñu ci barkeem moom Sayid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum li ma gën a marqué ci Sayid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al mooy bi mu nekkee xalifa te position bi xalif généraux yi am ci jamono bii ñu ne Serigne Cheikh nekk xalifa kenn gisoo juróom benni at nga nekk xalifa kenn mënu laa teg bët loolu marqué na ma ci moom li ma gën a yéem ci Serigne seex mooy façon pédagogie bi mu doon jàngalee moom Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy di nga jël alxuraan sax di ko firi ay ati ati at defe ni ni nga koy waxee noonu la mu jàppal la ko ci 30 secondes firil la loo xam ne day mel ni yow mosuloo jàng alquran da nga daan dégg borom xam-xam yi bi yàlla wax Seydina Muhammad ni ko wajadaka oh, fekk naa la yow rasulullahi daalan ngay ko sànku fa hadaa ma gindi la Serigne seex na yonent bi mosul sànku ni ñu koy firee mooy daal garab la gu nekk ci biir àll bi dafa am njëriñ te da koy romb doo ko xam ndax njëriñam dafa bari yàlla jël baat boobu utiliser ko Serigne Cheikh ñëw firil ko. ne yow yàlla yow rasulullah yàlla neena na wa wajadaka fekk naa la dalan ñu rere la waaw ma gindi len ñoom Walid muhira ñum haris ibn ibnu Nadr Aswad ibn Mutalib Aswad ibnu Abdul Yaxuus ñoom Rukaanata Abu Jahlin Abu Lahab waxtay batu ko otbatu ñooñu nga xamni dañu rere si gina Muhammad Serigne Cheikh ñëw firil ñu lolu bokku na ci li ma gëna yëm ci mom moy bis neena président Abdoulaye wad dafa ñëw sesti ko niko fi nga tëju ni do génn dina ñëw génne la. kàddoom bu yéem ma mu ne ko soo ma génnee ñaar laa namm ma yaakaar ne lu ne lay wax mu ne ko mooy jant bi ak weer wi kon kii yàgg naa tëddu àdduna waaye nekk xalif généraux kenn gisu la nit ñi di la gën a bëgg li tax ñëpp jooy ñëpp sa ngéem mooy dañu ko namm ba noppi mu woon ñu ginnaaw